liggéeyu barab bi ñu jagleel mbindum Serigne Touba ci biir université bi léegi mu door daara isbu tarxiya la ko Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des Mourides féetale ci ndaje mi nga xamante ni amoon na ko ajjuma bi loolu jàllee nag ba Serigne bi joxe ndigal li dibéer Serigne Atou Diagne jëruñ daara isbu tarxiya ànd ak Serigne Maam Thierno mu Serigne ba siiru jiite kuréel bi nga xamante ni ñooy jàppale Serigne ci taxawu liggéey bi. ñu dem xooli barab bi àndoon na ci it lenn ci ay techniciens yu nekk ci daara bu tarixee jublu gi moo doonoon xam ban barab la ñu rëdd ngir ñu war ko faa def xamanteeg itam barab bi ak ni nga xamante ni la bindoo ngir mën a jublu ci wàllu liggéey yooyu mu war a tàbbi nag ci biir université bi nga xam ni lu bari ci bâtiment yi tàmbali naa jóg ginnaaw boo xamante ni Serigne mun Mountakha Mbacké dooroon na liggéey bi bi liggéey boobu àggee itam dem nañu seeti Serigne Cheikh Bassirou Mbacke ibnu Serigne Abdoul Khadir mi nga xam ni moo yor kaddu xalif général des Mourides tey taxaw wàllu liggéey bi leeral ko fi nga xamante ni fa la ñu toll desul dara nag lu dul rëdd plan yi xam liggéey bi nan lay dooree ba war cee mën a jublu ci lu amul benn yàgg di fàttali ne barab bii ñu jagleel xasiday Serigne Touba yi ci biir université bi Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalifa général des murit moo ko xamle woon ginnaaw bi muy dajeek lenn ci njabootu Serigne Touba ñu doon ko jébbal ay mbind ak i mool ci xasida Serigne Touba yi di fàttali ne liggéey la boo xam ne mi ngi ko féetale daara Hizbut Tarqiyyah ci njiitul Serigne atu Diagne mi jëwriñ ji